le 25 novembre mbokk yi jandeer production la ñu ciy àndal ci diggante moo Anta bu Thiès ak Alioune Seye numéro 2 mu war a nekk lamb ju rëy ci arène national en live pay per view ngeen koy am ci seen affiche point com du xam ngeen seen affiche te min ngeen ko bés yu mag yu ne foofu la ñu koy seetaanee waaye nag mbokk yi jandeer yemul foofu ndax nee na tribune supporter 3000 francs dong la amateur 5000 francs annexe loge 7500 francs loge mu ne 15000 francs ciy jandeer production le 25 ku ñëw arène nationale xam ni boole na ay ndaanaan dëggantaan naa leen bu baax a baax a baax mu mel ne ki nag ñu ngi jàkkaarloog ki nga xam ne nii moom moo di Dieye seen ah borom Dieye production euh, Dieye yaakaar naa tey ki xewle muy euh, Makan meg ci yéen la bokk nga jiite leen ngeen ànd di liggéey li ko rafet tey mu tudd nga teew fii tey ban message ngay lancé Sénégalais ak itam et looy wax famille euh, waa kër Gaston Mbeng mi woy bi ak itam soxna si nga xam ne moom na yàlla may bébé waaw di sant yàlla julli ci yonent bi di sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul baax nag ñu sëñ Mountakha mi fi nekk ak njabootam gépp di sant di sant si maam Alaaji Malick di sant Limaamu Laay di sant mboolem kilifa diine yi yeewoo ndax ku ñëw fii tey di nga kontaan ku ñëw fii tey di nga ku ñëw fii xam ne bokk ak ñëpp rek moo wóor ku ñëw fii tey xam ne ànd ak ñu bari moo wóor nit nag du ne da ngay ànd ak ñëpp ñëpp dañ lay bëgg waaye nag makkan waajuram liggéey ni ci réew mi loo xam ne nii vraiment bari na fi soppi lool ñu ko yéene jàmm ja ëpp leneen waaye nag yàlla yàlla defal jàmm muy suñ papa Gaston yàlla wéral ay cëram yàlla bàyyil ñu ko fi ba ca kanam ak kanam ak kanam ndax amal réew mi njariñ la bi ma ñëwee léegi jàkkaarloog moom kaddu yi ma wax rek damaa neex muy kaddu kilifa kaddoy mbokk kaddoy taalibe kaddoy lépp ku xam Gaston xam ne waa Kër Sëñ Moussa Nawel la ku xam Gaston wax xam ne Sénégal képp la bokk makan ne kenn am na lu ñu am na lu ñu booleel waaye daam lu ci gën a foor man damaa foog Serigne Saliou makan ba mu xamee ne man waa Kër Serigne Saliou la waa Daaru Salaam la makan daf ma gën a jàpp chaque jour mu woo ma lu ma yëgul du nekk ci lu ma bokkul wala leneen maa ngi koy ñaanal yàlla lii nga xam ne moom la am tey ñëpp bëgg ko muy tut tànk yàlla na fekke njëriñu njabootam yàlla na doom ji du doon dunda dund ba gën ko teral moom comme ni mu terale ay waajuram ànd ceeg sama doomu ndey sama xarit muy Abdoulahat Ndiaye nga xam ne maa ngi moom euh, maanaam arxames la ak àjjuma ndax tey ci arxames la ñu nekk moo tax ma wax loolu bés doxul ci diggante bi da koy ñaanal yàlla jàmm ma koy ñaanal yàlla salaam ma koy ñaanal yàlla lu ma ko ñaanal ñaanal naa ko sama bopp Babacar waaye lépp bu rafetee ci réew mi yéen bokk ngeen yéen ñi da ngeen di ay di Lamine di Fadel sama xarit sama doomu ndey Babacar man du ma wax ci yow ndax koo dundal 30 ans te nit ñi xamuñu ko jaru ngay wax ci moom léegi xam na moom xam na man xam naa ñu ñaan ñëpp ay bool bool lañ kon nag maa ngi leen di nuyu di leen féliciter encore une fois di féliciter sama mbokk promoteur yeeg ñi ma bokkal làmb jeeg ñi ma gis si ñëpp dina ñaanal jàmm képp koo xam ne nii rek jóg nga pour ñëw fii lépp loo fi indi wat ci ay soxla yàlla na ko yàlla suñu borom bala la ngaa ñibbi lu ci bari faju bu dee feebar la yàlla na la yàlla nga wér ndax mag ñu baax a daje fii nit ñu baax a nekk fii ñu am valeur ñoo nekk fii ku ne xam na ne askanu làmb suñ koy wax lii moo tax làmb ay nit yu valeur a fa nekk xoolal borom sañ sañ yu rafet xoolal oto yu rafet yi gaare gaa yi gaare fii xoolal doxin xoolal wax ju rafet ji ba nga taxawee foo léegi lu rafet ngay dégg lu baax ngay dégg ci lu baax ngay nekk kon réew ci lu mel nii sport bi mooy ñi boole ñëpp façon bu ne nga fiy gis lu ne nga fiy gis kon nañ ko fonk te defaraat ko te gën a taxaw ci li ñu nekk leneen la ci am solo fu ma bu ma taalalee micro dama koy wax le ministre des sports lañ koy waxal Lat Diop ñu ngi koy nuyu de passage na jël suñu stade bi jox ko waa làmb mënoo ñoo defaral ba pare te doon jox fu ma taxaw maa ngi wax booy promoteurs yeeg ñëpp fu ñu taxaw nañ ko wax na jël euh, arène bi jox ko waa làmb ñun loolu la ñu bëgg voilà jërëjëf. léegi non bala ngaa dem euh, xam nga ji ku la tudd bawal yaakaar naa ne nga ne xam ne benn pion nga bu am solo ci. bawal fan yi passé bawal amoon benn journée boo xam ne dama naan journée ba daa mel ni bawal benn combat lañ ca ñàkk mooy bu kéwén ñu koy encouragé mais mu mel ni ki nag mbay guy sa doom tafaatin mi nga xam ne nii mën naa ne sa rakk la sa mbër la sa lépp la kera ngeen am ca ñaari ndam yoo xam ne yu kaw la yu kawe la euh, bés boobu jéey boo ci dikkaatee loo may wax ci ñaari ñooñu wala ñett ñooñu wala bés boobu <laughs> Babacar bala maa wax ci mbéy gi wala wax ci tawa damay encouragé Marley Marley dama koy encouragé sama ni la ku nekk nitu liiru jaan nitu jéey ndax ku ne xam na ne jéey liiru jaan liiru jaan loolu yàgg naa ko wax fu ne kon ku liiru jaan bëgg rek sama nit nga ku ma bëgg nitu liiru jaan nga suñ ñaar rakk doon bëri ñu taxawe ci këla meilleur ga daanaka yàlla may na mbay guy gi ndam ñu ngi encouragé marle di félicité mbay guy gi foofu laa ci mën a ci combat boobu noonu beneen bi ci des démb damaa dégg marle mu wax am njëriñ ci benn benn benn kii ma koy gën a encouragé am na yar am na teggin neex naa àndal bésu defet nag bu ñëwee bésu defet la bésu ndam ndam la loolu na ko gaa yi dañ doo uti ñoom ñaar jëpp yàlla may na mbay gi ndam kon nañ ñaanal yàlla mbay gi mu uti leneen marle uti leneen ñoom ñaar ay doomu ndey lañ d'ailleurs mbay gi mu ngi war dem seeti marle parce que ñoom ñaar ñëpp samay rakk lañu te dina ko seeti dinañ toog waxtaan loolu amul benn problème lamb la woon rek waxantewul lu ñaaw defantewul lu ñaaw mbay guy gi daanaka géejawaay la rek marle géejawaay la rek ndax man géejawaay la kenn ëppale ma géejawaay déedéet midi naa géejawaay kenn ëppale wu rawatina bawol boo ñëwee Euh, non seulement Tapha Tine kenn ci man Tapha Tine mu dugg lool lu mu dugg boole ma ci ca lu mu nekk ànd ci ak man lu mu soxla bokk ko ak man boo boole Tapha lamb ju am wala leen lu mu am man lay déglu Tapha du ma ko jox mu lekk ba mu xool du ko jox mu naan ba mu xool du ko jox mu takk ma xool te dama koy indi yooyu yëpp ci instant keroog nag ñu indi woon làmb lañ doon def vraiment vraiment waaw li làmb sol rek làmb gis naa bi ëmbatee dóore mu yàq man aussi ñiy yàq non xam làmb ji damaa xam làmb ji encouragé Eumeu Sène bu baax di leen xamal leen Eumeu Sène gars yi wax naa jeexal ci làmb xamuñu làmb gars yi dañuy dégluwaat ëm maa ngi noonu làmb ngi noonu day door a commencé làmb wax naa leen ko dafay door a commencé làmb day door a commencé làmb ëma seen billaay wallaay làmb ngi noonu non xaajalagul bu fekkee ne dafa nekk làmb cent pour cent ëma muy door a dugg soixante pour cent ci làmb kon dese na quarante pour cent kon kooku daanaan la maa ngi koy encouragé ëma dafa baax ni ma koy waxee chaque dafa yaru dafa ma mos a defal man képp ku ma dajal nga waaxu ñëw nuyu si ma rek jàpp naa la. ba ma dem ma ko demal Modou Lo dañoo daje ci ay armel mu séen ma ma dugg sama oto mu dugg otoom mu wàcc ñëw nuyu si ma man damaa bëgg nit ku joxe cër. parce que ñun dañoo joxe cër. bu ñu leen waxoon suñuy jaar jaar fii ci Sénégal wala fii ci àdduna. mën nañ ci bindu. bindu euh, histoire. kon nañu joxante cër. lamb ku la ci mag. wala képp koo xam ne nii nekk na ak yow ci lamb jiitu la ci pax bi. vraiment na ñu nañu jàppale te jógante cër affaire bi cër kese la du dara maa ngi nii foo fekk ñoom pour père Bourkhane père ñoom Paala ak ñeneen dama leen di jox cër boo xëy kon xam na ne ni ñu ànd man ak ñoom waaw waaw mais léegi li ma lay laaj li ma koy laaj Fadel mooy euh, waa kër Lac de Guiers ginnaaw bi ñu bëree ba yàlla may leen ndam ci kaw Siteu keroog bi ma fa demee man di jël Lac de ñoom seen xel mooy tafaatin su bëggee na ñëw ñu jox ko revanche yow ci te ci kilifaay tafaatin nga wax nga bokk ñooñu loo leen di tontu loolu neex naa tontu maa ngi félicité Lac de Guiers ci ndam li mu am. bi muy bëre fekkuma sax Sénégal. fekkuma Sénégal dafa fekk sama jabar yóbbu moom ma wayaasi bi tafaa baree ci guddi gi laa dem tukki. yàlla dogal bi Lac de Guiers di bëre fekkuma fi. kon maa ngi koy encouragé maa ngi koy félicité di encouragé Siteu. di wax ne seen lamb neex na waa kër Lac de bu ñu waxee loolu lamb la rek. lamb ku la booleel da ngay bëre moom. waaye li ma waxoon bërki démb laay waxaat tey. mooy li ma waxoon bërki dem man ku xam ne écrit laa bokk waaye li ma waxoon bërki dem laay waxaat tey Tapha bëréwut ak kenn roi bi lay xaar waaw man maa ko wax Tapha ku mu bëreel ku dul roi bi ma sot tafaa ah li nga wax rëy na la jéey ah yooyu tam xanaa xamoo ma ku tafaatin jël ko ku yor couronne bi nga sot tafaatin waaw maanaam lu mën a ñëw bëggoo kon lii roi bi rek nga déggoo li ma la ku tafa bëreel ku dul ku dul ku dul ma sot tafa loo koy jiyee loo koy jiyee ko wax xam nga man du ma waxantu maanaam damay wax nit ñi di ko dégg te bawol bool yëpp xam nañ li may wax ne dëgg la te li may wax looloo nekk ci man wax day jeex te du man kese maay sot Tapha bawol gépp ay ànd sot Tapha mais ñun dañoo soxla roi bi nag dañoo soxla roi bi d'accord man Babacar li ma koy laaj mooy mooy lan mooy sa secret sa digganteeg nitu làmb ba kenn ku ne am ak jiy jàmm kenn ku ne bu gisee jiy bu koo wan lan la te magoo ci promoteur yi njëkkoo fee ñëw waaye te cër bi nga joxe tey ba ñëpp kenn ku ne bëgg am ak yow ci jàmm ak salaam si lan nga de ba réussir loolu waaw xam nga lu ma la wax léegi nii lu ma la wax léegi ja euh, joxe cër ñun yàgg nañ ci làmb keppaaru Amed Diène laa yaroo man kese man kese maay sell ki xam biir néeg Amet Dieng xam fa ta yéen fa tafak dañ fa nekk wala leneen waaw kon xam nga loolu day caaxaan euh, xam ku ne xam ne sama papa bàyyi ba jéey dégg nga ak ni ma melan ak ñoom daan toog foofu ci ñoom sak jéen ñu ma daan yónni oh. bu ma liggéeyee ba yenn heure yi nekk marché ci leen réussir marché ci leen liggéey fa ba réussir ba bañ war ma fa defal monument kon loolu jombul lépp dama ko joxe cër nag du ma wax yeneen mag yi ma jaarandoon kon làmb nee naa leen lépp cër la bu fekkee ne liggéey na ci làmb ba lu mel noon dañ koy gën a yokk ndax yéen wuñ kenn dara ci làmb lu dul jàmm ñun fépp lañ bokk ci làmb di defar làmb nag bokk ci ñuy defar lamb bokk ci ñuy defar lamb à cent pour cent ku mel ni président Bira a ma déglu bu baax a cent pour cent keneen ak keneen di ma déglu bu baax lépp loo xay mën naa ko defar ma dem defar ko lu ma mënul defar ma xam ne sama cër nekku ci ma bàkk parce que nag nit mënoo mën lépp wala nga am lépp wala nga xam lépp daa am fu sa nekk am na ñoo xam ne sax bu tëggee lamb du ma dem ca lamb ja ndax sama cër nekku fa loolu foofu ñu bàyyi ko xel ànduma ak ñëpp de te ñëpp itam bëgguma ñu ànd ak man ku ànd ak naa fekk nga ku bokk naa fekk nga ànduma ak ñëpp bokkuma ak ñëpp voilà jërëjëf le 25 novembre mbokk yi jandeer production la ñu ciy àndal ci diggante Modou Anta bu Thiès ak Alioune Seye numéro 2 mu war a nekk lamb ju rëy ci arène nationale en live pay per view ngeen koy am ci seen affiche point com du xam ngeen seen affiche te min ngeen ko bés yu mag yu ne foofu la ñu koy seetaanee waaye nag mbokk yi jandeer yemul foofu ndax nee na tribune supporter 3000 francs dong la amateur 5000 francs annexe loge 7500 francs loge mu ne 15000 francs ciy jandeer production ku ñëw arène nationale xam ni boole na ay ndaanaan dëggantaan